lii jot jot na faw ñu xoolaat ni ñuy tabaxee ndax yàq-yàq yi bari na te am na loraange ci suñu dundin. ndaje bi li ko waral mooy dañuy lancer projet bi ñuy tuddee transformation du bâti grâce aux matériaux durables maanaam addina bi tey toll na foo xam ne maanaam tàngoor yi dafa sonal nit ñi naan changement climatique te loolu bâtiment yi dañ ci am solo bu réeree daanaka gis nga fi ñu bëree bari ñu ko seq. beneen bi mooy bu ñu fa jógee mooy dañuy def li ñuy tuddee évaluation pays maanaam ñu xool secteur bâtiment bi nu mu tëddee par rapport ak euh, changement climatique bu ñu paree nag ñu def li ñu naan feuille de route maanaam xool fi ñu jëm ak nu fay demee ak yan moyen ak yan stratégie ak yan solution la ñu fay demee. askan waa ngi yokku looloo waral état bu Sénégal war a gàttandu jafe-jafe yi mën a tukkee ci ni ñuy tabaxee. PTF yi comme on l'a dit ñoom ñëpp ñëw nañ bëgg jàppale Sénégal ci li nga xamee ne moom mooy. tabax ay dëkkuwaay yoo xamee ne day méngook suñu jamono euh, méngoog suñu jamono mooy instant yi nii gis nañ ni yenn saay euh, euh, taw day mën na ñëw yàq suñuy suñuy dëkk yenn tàngaay yi day yàq confort c'est-à-dire nit ñi ingénieurs yi ak architectes yi buñ dee xalaat kër wala buñ dee xalaat bâtiment dañ koy xalaat ba nga xamee ne boo ci duggee nga am liñ naan dalub xel am na juróom benni activité yoo xamee ne bu ko defee bu baax li ñu yaakaar ci moom yëpp ci économie dina ko mën a am daal di koy séddale ay ay ay doomam te loolu noonu ci juróom benn yooyu noonu benn bi euh, tabax bu sell ci la bokk coopération allemande moo financé projet bii nga xam ne dinañu ko amal ci Sénégal yëpp diirëb benn at. boo xoolee sa participation participants am na jóge jur Diourbel am jóge Saint-Louis je pense am jóge Kaolack mais pour Sénégal yëpp la parce que ministère de euh, de l'urbanisme donc mooy leader bi au niveau national mooy représenté état donc ONU Habitat day accompagner état Sénégal pour maanaam ci stratégie bi ñuy def nii. mais c'est au niveau national c'est pour un an donc euh, normalement projet bi juin 2024 la war a pare. lël bi nag dinañ fa tënk xalaat ya ca tukkee lépp rek ngir dëkkuwaayu sell ngir askanu Sénégal.